Bonsoir, comment tu vas Ça va très bien. Qu'est-ce qu'il y a pour Ndiakhate Ndiaye Kélian Tabarine bég ak ziar gaay li ma ci ku jog bëgg di wax ci réew mii sama galaas gi nag waxuma leen nga xam ne kenn bàyyiwu leen xel quoi mais ku jog di wax ci réew mi ak dëgg mu jëm ci ku mel ni Bassirou Diomaye wala Ousmane Sonko sax ak i ñoñam maanaam boo ragalee ku la wala nga wala wala wala nga bëgg ay vie wala nga ragal ay diabolisation daal maanaam maa ngi lay soññi di la dénk maanaam teg ko ci suuf diggante Ousmane Sonko ak ay ñoñam képp ku jóg di leen wax dëgg goo xam ne neexut jëlal say responsabilité yamale saaga aku tagg maam yoral jikko jikko xut bu samaan mais boo amee lenn looy xof ci maanaam comme li fi nekk nii rek dangay am problème parce que yow da gis ñoo xam ne ñi ngi ñii ngi ñi ngi ñëw di raayal ginnaaw Sonko wala raayal ginnaaw Bassirou Diomaye fay loolu moo war a dañ ci réew mi nit ñi xam ko man néew ma foofu li ma leen di wax yéen ñi nga xam ne nit ñi dañ leen di bàyyi xel man barke Serigne Saliou Mbacké man naa ne nguur gi fi nekk man dama leen di convertir ci lépp loo xam ne njariñu réew mi la mais lu toll ni tarfatal xay ni ci njuumte amul problème mais loo xam ne nit ñi dañoo jàkkaarloog moom mu mën a dañ te guñ ko waxee maanaam lu mu naqari naqari ñoom danañ ko baxel man damaa bokk ñi koy wax par la force mais képp ku bañ ku la saaga képp ku bañ ku la xas képp ku bañ ku la diabolisation maanaam noppil yow réew mi daa tardé li yi naan xaw ma soixante-douze heures yi ni ma ko gisee Fadam sax <laughs> ma ne ko sama doomu ndey Fadam yi de waaw moo buuse gis naa leen de moom bi ñuy mayee moom seen vidéo la ñuy dugal laal seen xasida wala laal seen alxuraan wala laal seen i Pape Diouf ak yooyu waaw bàyyi mu sedd mais man nag damaa jàpp ni xam nga tamit euh, di wax ngir intérêt personnel rek sa yo jógee di attaquer Sonko wala ku and ak mom ngir intérêt personnel koku da nga yomba jabulisé mais nit ki muy basir Diomaye fay muy Sonko muy opposant yi nga xamante si nii instant bi xamaguñ ñan ak ñan manam boy wax ñom yow nak li tax ngay nakaré jabulisé moy na intérêt Sénégal tax mais li ngay wax bu intérêt Sénégal taxul rek da ngay am problème subhanallah si saqar lana gaza, 112 série patriote ku ragal doo leen attaqué de ku ragal doo ci wax lu leer nañ laa leen wax barki sëñ Saliou